ci ndigalam ñuy introduire rek li ñuy def ci nga xam ne euh, dana intéressé képp kuy talibé Baye fu mëna né ci àddina bi ni ci Sénégal préparation bi bu sëriñ bi dugg si danañ xam li ko waral euh Ansaruddin mo ngi présenté année bi di ñëw di 2020 organisation euh, programme am sëriñ bi wara joxé joxe ndigal pour ñu déclencher wu depuis tay pour tambalé 2020 organisation Jamiyatou ansaruddin. Diin sëriñ bi euh, talon yi ngay gis ci sa kanam mooy yi nga xam ne moom nga doon jo désigné muy dem ci fédération yi muy waral cotisation yi euh, muy suuf si cotisation annuelle yi membres yi ak adhésion membres yi tey jii 2019 mu ngi jeex ci tey ci ñun ci organisation gàmmu ndax tey la gàmmuwaat donc ñu dublu ci phase ñaareel euh, année at bii di ñëw muy 2020 tey jii ngay war a joxe ndigal pour ñu démarrer activité 2020 bi ci carnet yi Ansaarud-Din doon tëral kon ñu ngi tàllal micro bi mu jëm ci yow. wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahabatihi wa ala tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ñi ngi ndokkeel suñ bopp di leen ndokkeel yéen ñëpp ci bés bi nga xam ne bés bu màgg la ci jullit ñi bés bu màgg la ci lislaam waaye bés bu màgg la ci Baay biñ ne juddu yonent bi sallallahu alayhi wa am ñu ne ñoom dañuy màggal juddu bi am ñoo xam dañuy màggal ngénte li Baay mu ne man yonent bi sallallahu alayhi wa amut lu ma ciy jël di bàyyi li ci des lépp lay jël lépp lay boolante moo tax mu màggal bésu juddu ba ba pare di màggal bésu ngénte li mm. ñu ngi fii ak Cheikh Abdoul muy doomi baay di sama rakk di sama xarit di sama lu nekk yàlla def mu nekk Nigéria di fa liggéey liggéey bu mucc ayib ci fayda bi mm. yàlla def na fii ñuy waxeek yow nii moom euh, ambassadeur itinérant la bu ansaaru diin fal nañ ko ko mu nangu ko lool fas yéene bu delloo Nigéria dugg ci biir taalibe bàyyi fu ñu mënti nekk fu sénégalais nekk rek mu fexe ba boo buggee carte nga mën koo am soo buggee euh, cotiser nga mën a cotiser loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax lii nag ku ko gis ci mbokk yëpp dana xam ne changement am na changement de méthode am na ci Ansaarud-Din mooy lan mooy génn nañ ci gàmmu gi mais déjà ñi ngi projet gannaaw bu ñu leen gërëmee ci taxawaay bu rafet bi ak yokkute gi ak itti gi nga xam ne gis nañ ko ci gàmmu gi ci côté bu nekk yokkute goo xam ne kenn mosu koo imaginer kenn mosu koo foog loolu yàlla nañu yàlla wan ne moo ñu gën fuuf wan ñu ci teraanga ak barke lu ëpp loolu changé méthode bi nag mooy lan mooy fi mu ne nii nii nii tey gannaaw ci bisi gàmmuwaat bi ñii ci lañ jël fiche kii yi euh, bor euh, talon yi nga xam ne moo jëm ci 2020 nga xam ne

Euh, Russie waaye moom itamit talon bi ñu ko jox xam nañ ñaata la bu dellu seeyaatee talon bu ci jarul dana dana dana wax ne lii jar na wala mi ngi nii. loolu pour dimbale ko la pour dàq tuuma ak itamit fexe ba teel a commencé jug liggéey ba nga xam ne dootuñ toog ba gàmm gi jublu si ñuy profité nit ñi pour ñu indi li ñuy teg bugg nañ. lii Ahmed Khady def ñu ngi koy gërëm bu baax parce que moom itteem moom ci boppam moo ñaan ne bu gàmmuwaat gi jeex mukk te joxuñ ko ay talon pour moom mu commencé léegi liggéeyal 2019. lii nag junj bu rëy la boo xam ne nii melokaane bu bu mat la boo xam ne bàyyi gërëm na ko ñi ngi ñaan képp kuy président départemental ñi ngi ñaan képp kuy président groupement bu mënti doon ba ci président daayira yi ñoom ñëpp nañ fexe ba wax ne amat Khary du ma ëpp itte du ma gën a am fulla duma gën a bëgg bàyyi kon nag man i tamit yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaan ngeen ñëw jël si seen talon yi nu mu gën a gaawee ñu jox leen ko ñu commencé liggéey léegi léegi léegi léegi léegi balaa mars ñu mën a joxe contrat dine àgg nañ ci ñëpp cotiser nañ bu ko defee bu boobaa nit ñi dañuy noppalu dem ci seen yeneen i liggéey ba pare Ansaaru Diin dana am budget boo xam ne lépp lu ngeen soxla ci pays bi moom moo leen ci uutu pour defal leen ko suñ leen waxee ne leen Ansaaru Diin gàmmu gii fi mu tollagum nii liñ calculé gum ëpp na 40 millions. yoo xam ne defagum na ko ci gàmmu gi loolu te euh, dara waralu ko lu may cotisation ak ay partenaires yoo xam ne participer nañ loolu li muy und mooy su ñëpp participer déwén danañ def lu ëpp 60 millions ci gàmmu gi te kenn ci ñun du yëg du ko yëg ci poosam du ko yëg ci daraam te bu boobaa bu waxee ne gàmmu gi euh, rafet na ñëppay kontaan kër goo xam ne nag bu tilimee ñu xasee la ko bu setee ñu taggee la ko ba pare nga nga ñu organiser ko ba nga xam ne buñ koy bale yow sa ñaar dërëm rek nga ciy joxe dëgg-dëgg loolu nit war naa góorgóorlu pour mën koo pour mën koo respecter pour mën koo fonk kon ñi ngi dellu di gërëm Amad Khady mais di gërëm seen dép seen seen euh, département Nioro parce que taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw nañ ko ak itte ji ñu am gisaguñ kenn ku ko am ñi ngi ñaan ñëpp ñu dab leen ba raw leen am na dëkk bu ma wax ne ma dëkk boobu foog ñu tudd ko mooy Touba ñaan Touba ñaan maa koy tudd ben yoon Touba ñaan ñaar yoon Touba référence ci talibé parce que ñom rek ñoy dëkk bo xamné sen fiche sen sen fiche yi vide manam amul kenn ku fa nek kuy talibé bàyyi ku cotisé wu loolu Touba ñaan rek la. Touba ñaan nak kon ko ci ko ci bi ko ci Mahi ko ci imam danañ ko aggalé ci porte parole bi ñepp wax len ko na len wax def. war nañ ko wax ci kaw yépp bala dewin ñi ngi ñaan bépp dëkk na wax ne dewin man Touba ñaan duma ko yobul li dal bëggu nañ bu dewiné dootuñ tuddu benn dëkk naan mo mo num tëddati amna nak ay dëkk yo xam sax nak wax dëgg yalla mom zéro lañ bam mu jeex te loolu bugguma koo tuddu waaye loolu yi tamit wax dëgg yalla talibé bàyyi war nako jombalé bopam war nako parce que amul lay bo xam nit mën nako ko layé parce que bu doon association boo xam ne sax ay chrétiens ñoo ko créé foofu ca dëkk ba waaye ñu ngi ciy dimbale nit ñi di ci def loo xam ne nii yow amal na la njariñ sax war nga caa participer ndagam laajuñ la lu may 2000 francs astuma bu fekkee ne bàyyi ci boppam moo la ko laaj ñu ne la boo joxee bàyyi 2000 francs kese kese kese kese mën nañ cee regle gàmmu gi régler ci gàmmu Tayba gi régler ci li leneen yi nga xam ne Ansaar din war na koo régler yëpp yëpp yëpp yëpp ci 2000 francs loolu wax dëgg yàlla warta jafe kenn warta nekk problème mu kenn sant yalla bu baax di di len di len di len di di rafet di eh, gërem taxaway bi ñi nga xamne ñom la andal di liggey ci se ñang mi sama jarbat Cheikh Tidiane gay mi eh, Lopez Ibrahim Lopez ak eh, Nyami Ahmad Ahmed khadim dama ko jëlale parce que man dama ko def kay bu gu talibé bi yépp di ko roy kon ñu ngi leen di gërëm ci seen taxaway bu rafet ak and bi nga xamne and ngeen koog ñun te yalla tax gis nga buñ andé te tax liñ mëna réaliser bi gamu gi di jublu si des lu mat djuroomi fan kenn ci ñun fogu todde li ñu réaliser mën nañ ko réaliser mais man buñ ñu waxaan rek ne ma jàq nañ ma ne leen du yaq gamu mom mas ta yàqu parce que gamu bisu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la lu yalla mën na sétan lu nek bam dess des bisu bi kon nak mu rafet rafet gi mu rafet te ñi ngi ñaan yalla mu gëna rafet kon euh, le ki bi euh, message bi moy lan moy 2020 commencé na ci ñun

<laughs> waaw kon daanaka man Ansaarud Din moom dama yaakaar ne genn wàll gi yëpp man la <laughs> moo tax ngeen ñaanal ma yàlla ñaan yàlla yàlla yombal leen ñu ko te tamit euh, ñu am ndigal ci xalifa bi rek ak ci euh, euh, président Ansaarud Din incha allahu ci réew mi incha allahu pare naa incha allah pour taxaw lépp lu Din soxla foofu incha allahu ci Nigeria yëpp danañ ci taxaw incha allah ñu ngi ñaan yàlla tamit yàlla dimbale ñu ci bu baax a baax baax baax a a baax yàlla guddal euh, fan yi xalifa bi baax may ko wér ak président Ansarul Din ak euh, membre yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp di liggéey yàlla ñu yàlla dimbale ñooñu ñëpp euh, sëñ bi gërëm na ki Alaaji Amar Xadi ndax jar naa gërëm man tamit ndax wax dëgg yàlla gis naa ko ca réew ma ñëw na dugg na fa Sénégal ya fa nekk yëpp wër na fa daanaka dugg na ci sama tool ba sax <laughs> waaw <laughs> bay bayaaleel ma tuuti <laughs> waaye incha allahu incha allah bu ñu yàlla delloo incha allahu lépp lu ci aju ci Ansaarud-Din danaa toog ak yéen ngeen wax ma ni ni may def carte yi ni ma ko war a def ak ni niñ ko war a defee yëpp. ma comprendre ko ngir bu ma àggee man tamit continuer liggéey foofu incha allah jazakumullah xayran kulli am wa antum bi xayr salaamaaleykum wa rahmatullahi taala yàlla yàlla yàggal sa taxawaay yàlla yàlla dëgër sa euh, man-man say càkkutéef ci ansor diin aludur ansor diin lépp yàlla na ko yàlla matal kon nag yéen samay mbokki taalibe dégg nañ lu suñ sëriñ wax baay moo oote nag kon nag ñun taalibe yëpp nañ ut si du département Nioro rek mboole fu taalibe nekk ci département Nioro ak ci Sénégal Dakar addina bi yëpp kenn ku nekk kuy uyoo bàyyi nga gëm ne bàyyi moo sa sëriñ kenn ku ne nga préparé joxe sa 2000 2000 francs yu jëm ci bàyyi reen ba di yaakaar naa ne yomb na sax xale bu ndaw buy nàmp waxtuma laa kilifa kon na borom kët gu ne na wax ci waa këram ci ay soxnaam ak i doomam ñëpp nañ préparé cotisation yi kon nag ñu ngi gërëm ñu ngi sant wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.